iblis si boppam la njëkka mhm. fari am na suñ bay jaxate koy wax naan ko sa daana waral seytaane xajj ko daw <laughs> yoneen bu tedd ba muuñus lëf aras jaayam <laughs> waaw muy wax ci biir ne xidmatu xayri naasi bil jinaasi wa bil lusuumi ay yasat xanaasi <laughs> dammara naxwi wa aroodi kulla man baarasani billahi maliki saman maada wa maata xaasidil maani bil maanawiyati wa bil maani yooyu yëpp ci biir jihaad gi muy jihaad rabixtu fil jihaadi wal buyooxi wa inda rabbi surtout daa duyooxi lam yanhu nii iblisu min baadil firaar xamalahu xablu alal kaydi ixtiraar isaa talawtu aw madaxtu ahmada xajila haariban li xayri mukmada salama aslihatahu allati naha liya biha man liya sabba minaa daha midaadi wa xilaamil yawma li sukri xawsi maa yafuuqu sawma lii xaadara bi muxjilal xiyaami wa muxjilal jihaadi wa siyaami bu ko defee nag noonu mu ci jihaad yi maanaam dafa mujj nag kuréelu yàlla bi nga xam ne ñooy ab kuréelam ñu seede nag jihaad gi mu jihaad ak nangul guñ ko nangul ne not na ay noonam sahida lii jund ilaahil xaalibuun bi anna aadaai mahan lii yuxlabuun qaatala anni qablu ahla badri saadahumullahu tilaa qadri noonu la wéyee ba ci ay yoo xam ne sax xëy na bind ko wala boog bind na ko waaye man sama xam-xam àggu ca waaye noonu mu daa jàng li nga li nga junj sànq nga xam ne kum kum mas a jàkkaarloo ci seen xeeti kilifa yooyu waxee naa ak yow wax joo xam ne mm-hmm. da nga ci xamee moom ak njàmbaaram waaw ci ci biir ci biir ci ci yoon wi nga xam ne ci biir géej gi sax laay wax. Mhm. am na boo xam ne nee nañ daa fa am ci kilifay Tuubaa bi koo xam ne daa ñëw. Mhm. jëm si ci moom. Mhm. ànd ak xaj. sëñ bi ne ko fekk sëñ booba buy bindu amul amul jot du taxaw. xaj yi sax day def aw xaj nii diir ba muy woy mu teg ko fa bindaat na wareen xaj hmm. waaw xam nga yëpp ay tënk la li ci ëpp ci xasida yi ay tënk la day daal dem seet rek ne comme xaj wi nangami wayee ci wara a ne mu daal tàmbali fële continuer di wéy ngir xaar mu wow xam noonu lay tegee teg teg teg ba mu bari. bi ko jub see mu ne ko téel sa dawkat boobu bu mu laal sama kayit mu ne ko ah da bañ a daal dem ut ci ak gur gur rek waaye lii sëñ sëñ Maodo doon wax. daam jooju nga xam ne ku mu ko wiccax foofu foofu lay feeñe nee na bi mu ne siggeet yem ci ñu daw wut si ko rek dafa wiccax ko xalima gi la def mu daal di tàkk am na tàkk jëppët daal di dëpp riisu benn mu tàkk mu riisu beneen nga xam ne noonu noonu la dem nga xam ne ko jëmmi xase da nga gam doon taalif boobu sax mooy bu mu tuddee xul maa yaa ba ubbikum laa duhaakum te ñu di ko tuddee baax baxaa moom la doon taalif ca jamono ca jamono joojee loolu it da ko topp bi fu mu mas a ci ñoom du wax ak ñoom wax ju neex wax ju tàng lay wax ak ñoom joo xam ne da koy wéer ci dëgg sukkandiku ci yàlla amut am ñaareel sukk na ko ci yonente bi sallallahu alayhi wa ak fas yéenee leeral diineem ci ñoom gis nga yoon wi nga xam ne moom la ko tubaab yi mujj woo ci ndakaaru dégg naa sëñ sëñ sëñ sëñ sama waajur sëñ fàllu nettali na ma ko nee na sëñ bi wax na ko nettali na ko nee na boobu bi ñu bi ko fiy jëlee di dem teel bi yëpp dañoo tëdd ci kawraay bi ne sëñ moom buñ ko fi naree yóbbuwaat ñun dañuy dee ba jeex waaye duñ ko duñ duñ duñ seetaan ñu du ko yóbbu. ba mujj dañ leen a nax ne leen léegi bàyyi nañ ko daal di wàcc sëñ bi dugal ko ci ab oto nee leen mi ngi dellu kër ga ba ñëpp daw saxaar gi départ ba génn dëkk bi taxaw oto bi réera réerantu leen ñu dabi ñu dabi ko mu mu doog a dem waaye gis nga yoon woo ba mu essayé bi mu duggee ci bureau bi. Mm-hmm. lim njëkk def mooy dañu. laaj satala gi ñu jox ko mu sotti ko ci banque bi ñu ko tegaloon ngir mu toog ci <laughs> ñu sott sotti ko ci ba mu tooy mu lal ci dara teg ci kaamil bi mu yoroon daal di laaj sajaada gi ñu jox ko mu lal ko julli ñaan rakka bi mu sëlmalee daal di wax duut sekk bu ñu wax daal moom nga xam ne moo ko doon. Mm-hmm. moo moo ko moo ko doon jottali ay waxam ca yoon wu njëkk wa fekk moom gannaaw loolu dafa mel ni dafa mujj jébbalu ci sëñ bi. ndax yoon wu njëkk wa ba muy wax. te di di tonneel wax ji sëñ bi bu bu tubaab bi waxee lu tàng mu wax sëñ bi lu mu mën a dégg. bu sëñ bi waxee lu tàng mu wax tubaab bi lu mën a dégg. <laughs> sëñ bi ne ko li lu tax ngay def loolu te man maa ngi lay dégg li ngay wax lépp maa ngi koy xam. mu ne ko yéene la jàmm rek. te xam seenu saay-saay. mu ne ko yow ay wow nga nga nga nga jàpp ne man naa es ba nga ne ko jéem a fegal may dinaa ko doxe sa digg ak ñaari malaayka yi laaj ci bàmmeel mu ne sëñ bind ko sëñ bind ko jox ko nga xam da koo defoon ab téere takk ko looloo tax nag xam googu ñu xam diggam ak sëñ bi biñ bëggee jubóog moom dañ ko woone ko nu ñuy def ba mën a jubóog moom bokk na ci sart yam leen joxoon dana leen bu leen ko woo ci waxtu julli ndax bu ngeen ko woowee ci waxtu julli du ñëw te kon li ngeen bëgg du mën a am ñaareel ba fa ngeen koy woo bu fa ay jigéen ne bu duggee gis leen fa day dëpp te bu ngeen ko wooyee du dëpp du dëppaat di ñëw bu ngeen wax ak mooy bu wax ji gudd wax ju guddee day jug bàyyi leen fa dem ndax amul jot ñu ne ko waaw kay li nga wax lépp danañ ko def waaye léegi loo jàpp ne mën nañ ko ko jox cadeau ndax mu jël ko mu ne leen xaw ma ko yaa mu ne leen alxuraan xanaa alxuraan daal laa xam ne bu ngeen ko joxee dana ko jël ñu yónnee lu tonis liggéey lu fa ab kaamil boo xam ne bu rafet la rafetal ko ba mu rafet indi ko bi mu ñëwee sax kaamil boobu bi nga ko joxee sëñ bi sëñ bi dana leen bindoon naa ci ba ma nekkee ak ca Gabon de ne ne ne du ma jël mukk lu juge ci yéen mhm. waaye téere bi danaa ko jël ndax mooy sama seere ëllëg yow mal xiyaam ndax da ngeen tuumaaloon ne dama bëgg nguur damay mhm. jihaad ngir ngir sàkku ak nguur tey ji yéen a ma seeral ne bëgguma lu dul alxuraan kon faaw ma téye ko téere boobu mu mujj ci ci loxol suñu sang bu sax la mujj waaye gis nga bi mu duggee ba def loolu ma wax sotti ndox ci kii bi teg ci téere bi mhm. julli bi mu noppee dane ana ku ma woo ak lu may doye <laughs> ñu ne ko waa koy kilifa gi moo la woon mu ne ko waa bala ma laa wax li ma lay doyee toogu bii nga sotti ndox loo ci jublu te dañ ko fee tegoon ngir nga toog ci mu ne ko waaw alxuraan laa te day wax yàlla di lu tedd lu sel loo xam ne waree su koo teg fu laabut te yéen ngeen di ay sobe ndax suñ borom moo ne innamal musrikuuna najasun looloo tax te lu sobewul lu ne ndox koy laabal mu ne ko waaw kay léegi julli gi nag te fii du jullikaay mu ne ko dangeen koo defar defarin wu jekk woo xam ne euh, jaamu yàlla rek a fi yàlla te mu wóor ma ne mosu leen ko fee def moo tax ma def ko fi <laughs> mu ne ko waaw kay suñ kilifa ga ca bitim réew moo ñu waxoon nañ la woo ba fii mm-hmm. wax la ne nangu nañ ne dañ laa tooñ ndax ñi ñu jaxase woon ak yow ñoo waxut luñ xam ñu nit gëstuwuñ mm-hmm. waaye dem nañ ba xam ne yow dara ñoru la lu dul sa boroom xanaa ak téeréem bi léegi nag moo taxoon ñu woo ba fii mm-hmm. laaj la it neewoon na it ñu laaj la loo gën a bëgg ñu defal la ko mm-hmm. sëñ mu ne ko li ma gën a bëgg moom jërul nga di ko ma di leen ko wax ndax amu leen ko xamu leen ko mënu leen ko te ki ko am xam ko man ko defal na ma ko ba noppi <laughs> mu ne ko waaw ah, kon baax na léegi ñu ngi lay sant di la gërëm mu ne ko kon ngeen gërëm ku leen gërëmut daal di wëlbati ko <laughs> <laughs> waaw lañ ko fa joxoon lépp it daf ne wax ni dafa geesu kilifa yi ma am àndoon kenn ne ko mhm. bu ma ci dara topp eh. ci ni nga xamee ne nii lay nii lay waxee foofu feeñ na ci mhm. ndax am na way wu mu wayoon woo xam ne mm, jiitu na jiitu na jiitu na jotaay boobu uh-huh. waaye bu mu ko wayee da ko daf ko jox sëñ sëñ béyt bi laay fàttali lam yenn xun yi lam yenn xun yi wane ci daal ne du du ma du ma xàcc mukk li ma jaayante ki ca bis ba nga xam ne yowmal amiri sayyanal maqaala lam yan moom lan yowmal amiri sayyanal maqaala mooy ñaareelu xàbb yi mhm. ba mu ko woyee daf ko jox suñ masàmba ne ko lii kat ñëwagut waaye bis dina ñëw bu buy ñëw ñoo cay ànd ba tubaab bi tàmbalee rafetal ay waxam waxam ngir bëgg bëgg bëgg bëgg kii mhm. mooy mu yokk ak taralam ci la mhm. geer suñ masàmba ne ko béyat wu ma la waxoon tey jiyee ko taxoon a jóg yudul jeex la am na ci boo xam ne dañoo ñëw ne ko ñun kat daam lu ñu yëkk mhm. moo ñu tax a jug tey si tey jii di la ko laaj si mhm. ba ci njëkk sax ba lañoo ñëw ci loolu mooy euh, dañoo dégg ne ñun dañoo euh, yilif réew mi mhm. ko coloniser jënd ko it balak doom biñ ko defee ba noppi it ngir xam ndax nit ñi nangul nañ ñu wala nanguluñu dañ leen laaj imp impôt bii du dara daanaka lu néew la. waaye teewut danañ dóor danañ jàpp danañ tëj te nuñu nanguñ koo joxe yow ñu dégg ne yaa ngi laaj ñaar fukk ak juróom-ñett tey dañ la ko jox ba nga doy ba nga ne doy na suñ mu ne waaw yomb naa xam damaa moom xol yi ngeen moom jëmm mu ne ko li nga wax xaw ma ko mu ne ko taaxi jaarim yooyu mu fees dell ak lam feese uh-huh. ngeen moom xotti tabaxee moom moom la ci biir mu ne gën le bi ne ko fuuf uh-huh. ñaareel ba it foofu laaj na ko fa ne ko Mm-hmm. waaw tooñ gii ñu la tooñ ba mu leer naa ñi ñëpp xam ne dañ laa tooñ ndax da nga fay mu ne ko surga boo koy laaj laaj ko fa muy xëy tey mm-hmm. waaye fa muy xëy suba moom ki koy xëy loo nga koy laaj daane ko yàlla digalaguma ko waaye bu ma ko digalee ci yow mii laay tàmbalee nga nga xam ne pëstéef boobu nga xam ne fu mu toll mi ngi <laughs> mi ngi mi ngi mi ngi jekk mm-hmm. nga xam ne teewut jaayante gi mu jaayante borom ne du xëccook ñoom te lépp lu lu fuñ ko xaj dana ko def lu dul rek ndigalul boromam teew loo xam ne mënatu amatu amatut kii nga xam ne ba tey ñoom dañ ko xamoon ci moom mm-hmm. fu ko mas a wooyit lu yëf yi métti bu waxtu julli jotee day mel ne xamatu leen dina koo xam ne mu ko wooyee toog di wax ak moom yàgg mu ne sëñ mu ne ko waxtu waa ngi bëgg a mu ne ko ah waaw man sa kilifa di <laughs> waxtu bu jotee loolu moom lu ci sama yoon da toog diglu ma ba àggal waaye nee bi ne bërit ne tell bunt bi dafa dajj ko ba daanu ci kawam moom moom moom waaja mu dem wàcc ko fa noonu la meloon ci seen eh, jëmmam ak léppam lu muy jëflante ak ñoom waaw dëgg la muy eh, lu am solo suñu fàllu xanaa loolu de mooy eh, wër ci xet bi an ni laa udaahinu musrikan mm. <laughs> nga gis di kon ñoom